Yenda lire ne fii li ñu raasale yéen ah kontaan naa ci yéen waaye noo leen gisee kër ma jooja ji taxawal yow taxawal taxaw waaye nii ni ngeen ko raasale yéen Fatou Gueye yaa def nii na ngeen gis sa kër ma jooja gi kër ma jooja mu ngi nii neex <laughs> maam Maram Ndiaye yéen lan lañ gisee kër ma gi neex. Mm. ak farlu rek. gisee mm-hmm. jot bu ñu rus ginnaaw léegi añu pare. billaay walaay sax kontaan. loolu neex na ñi nga xamante ne ñoom ñëpp nga xamante ne ñoom. loolu neex na xanaa xam nga. loolu neex na ay suka yow xool ba fii. yow nga mel ne Maram Faye Sall nii. <laughs> ñu ne taasuñu mën a. <laughs> nekk kay jàll nekk kay jàll yow yaa yëngal fii chéri Mor Ndiaye yow. ay cérémoire yow noo def ci ak Kër Madior yaa ngi si nga la xanaa kontaan rek. ah Kër Madior jéggi. Kër Madior jéggi neex na. waaw sax gi bari na. réew ji bari na. bari na. ak bi jaar na ñaan ñu sama goro lu mu yor damay ndax leer rek Amadou Diagne yaa ko yow laa doon déggal ma ko yaa ngi ànd ak Kama Joy wax fii te groupe ba waaw ah lépp nee na ah ñaanal xéewal ak jàmm rek ba ñaan sax dañ déggal ma ko na yow sa gi ah kër ji neex rek ñaan gudd fan ak wér du nuyu Mansour Diagne di ko siyaare du nuyu mboolem ku ci bokk ci sëti ma jooje na ndax suñu xol sedd na guy yal na nu boole xéewal ci Fallu dara wul gis na gis nga ko neex na yow kon gis tonton Mansour délégation baa ngi noonu ñi ma jóge léegi ñooy waa waañ wi ñi ñoo tok rek di dag affaire yi di dag affaire sé sa rek ñoo ngi ni waa kër gaa ngi nii rek goor ñaa nga nale jigéen ñaa nga nee oto yaa nga nee lépp ngi ni manam kër ma dal mom dara manki wu fi dara dara manki wu fi dara manki wu fi waye yeen yeen la doon sédde yeen wa groupe bii nii waaye noo leen gisee kër ma gi yeen ñi ko tané na xol ma ma gi kër Magui. Hmm. kon baax na ah sama xool ma si Dame Diagne wala da ngaa a point. na gisee kër Magui xool ma na gis ah hmm. kontaan nañ ci. yéen a ngi entre